tay dajé nañ fi aussi ñu ne nañ def consultation gratuite parce que jigen ni su xam ñu ñep xam nañ souvent amna na yenn problème yo xam ne ni ñu ngi kay jank ñu ngi kay euh, am da fay accès aux soins fa métti donc tay buñu ñu leen defalee consultation gratuite pour pour le pour le cancer du sein cancer du col ak itam la tension et tout cela mom mo waral tante bi tay ñu def ko fi mais du té duñu leen bayyi buñu paré ci lolu képp ko xam ne nañ ci parce que y a des spécialistes qui sont là là-dedans am une seen fiche technique danañ leen mën suivre su fekkee à Dakar c'est beaucoup plus facile su fekkee c'est à l'intérieur du pays aussi dañ leen jéem a orienté ci foo xam ne faire foofu la leen euh, pour seen soins yi ci ci war. consultation bi dañuy def euh, dépistage cancer du col sage-femme yi ñoo koy def dañuy def dépistage euh, diabète ak dépistage hypertension artérielle C'est may li nga xam ne loolu nag buñ ko defee pare euh, dafa am ay conseils yoo xam ne dañu koy defal jigéen ñi ak loo xam ne euh, dañ leen koy jàngal pour ñu mën di ko defal seen bopp loolu mooy palpation mammaire bi sage-femme dina ko jàngal bu ko defalee consultation ba pare dina ko won jàngal ko naka la mën defee autopalpation maanaam seetal boppam ci weenam ay donj pour bu ci bu ko ci nemmeekoo bu ko ci gisee rek mun a teel a jóg dem ci structure sanitaire bu ko defee ñu jël ko en charge. journée bi nga xam ne mooy journée ama femme ànd takku liggéey muy association multinationale pour la accompagnement des famille muy association bu am solo boo xamante ni wër na adduna la ay wax parce que États-Unis amee kii euh, Allemagne France euh, Gabon ba ñëw Guinée Mali partout am na membre yoo xam ne ay membre ama femme ñu nga fa. muy vraiment loo xamante ni lu rafet la initiative boo xam ni la présidente Aïssatou Ndaw moo ko initié vraiment mu nekk lu rafet ñuy dimbalante nag ci suñu biir. fii nii gisagum nañ fi ñeenti nit ñoo xam ne seen taux de sucre bi dafa yéeg gisagum nañ fi juróom ñoo xam ne seen tension dafa yéeg donc xam nga ñooñu te am na ci ñett ñoo xam ne xamuñ woon que ni loolu mu ngi ci seen yaram.